vraiment gardez votre calme euh, wax loowuma kenn bindloowuma kenn defloowuma kenn point de presse euh, parce que kii wax di Awa Niang lim ma wax moom moo toll noonu rek waaye man euh, Adji Mergane duma ko fekk ci benn domaine xam nga mus damaa tooñ yàlla atte ma ak moom bi ma tooñee ca koor ga la ma tooñ ca assemblée nationale ma bàyyi kook yàlla teguñ si ay weer li ko dal dal ko ndax Pikine rëy na lool ñu ne ko yaa rey nit dangaa rey doomu aadama dangaa rey lu doomu aadama yàlla atte na ma ak moom kon bu ñëwaatee tey attaqué Mously Diakhaté ma am lu ma ca wax mu ñëw def audio bii di ko wasaare ci dëkk bi damay sant yàlla rek <laughs> daal di ko bàyyi waat ak boobu bët bu réy bi ma leen di ñaan bu ma dégg benn jigéeni Benno wala benn jigéeni Macky 2012 di ko tontu moom moo toll noonu dama leen di ñaan ngir yàlla ak yonent bi fi ngeen ma teg ak ni ngeen ma fonkee ak cër gi ngeen ma jox dama leen koo ñaan mënoon naa oo ku nekk téléphone waaye mënuma ko parce que ñi ma woo bëri nañu lool moo tax ma naa def audio yéen xam ngeen man xam naa yéen xam ngeen ne Awa ñaar buy mobiliser Pikine jigéen benn yoo koy mobiliser mënta mobiliser benn kaar yéen xam ngeen man xam naa jigéen benn xam nañ jigéen Macky 2012 xam nañu ñëpp xam nañ ba muy mobiliser fële ca Dalifort jigéen benn yoo koy mobiliser waaye loolu yëpp amul solo xam nga li am solo di am na base amul baas bu leen ci meex ndax président Macky sal ba mu méttee li siy xat loolu choix difficile loolu. la ma jël tabb ma def ma ci liste député ma koy sant ndax loolu ko amul base duñu ko defaral kon nañ ci xool président Macky Sall xool ci madame la première dame Marème fay Sall ñu lépp lu ngeen jàppoon ngeen bàyyi ko bu ñu kenn divertir on a un objectif ñun ñëpp te wax nañ ko nañu jàppale président Macky Sall li nga xam ne moo ay politique publique am ñu bokk si ñu koy vulgariser. plan d'action bi ñu déroulé bu ñu koy wàcc kon maa leen koy ñaan bu ma gis benn jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar bu nekk di wax moom am na lu ko doy ndax Sénégal ñëpp toog 16 millions de sénégalais ñu ne di Fatoumata Mbata Ndiaye dee na ñu ne Awa Niang bokk na si ñi ko rey ñu ne Awa Niang bokk na si ñi commandité ñi ko ñi rey Fatoumata Mbata Ndiaye yaakaar naa ne loolu rek doy na ko moom cakk ak njaar loolu la war a lijjanti setal boppam ñu tuumaal luñ ko de mais dañu ko tuumaal kaka tuumaal kane moo def moom foofu am na lu ko doy elle devait sa faire toute petite leen rek laay wax nag ndax après dinaa saisir yoon tamit parce que man tamit ah kii ni mu waxee nii kat amal na ma en nag te ma vie peut être en danger loolu dong laa xam naa teg ay jéego mais ginnaaw loolu maa ngi leen koy ñaan ngir yàlla ak li ñu bokk dal leen nañ dal leen. vraiment bu leen ko topp ku nekk li nga toll ngay def man laf cat am naa ñaanu waajur sama ñaanu borom kër yàlla seetaan nu ma yonent bu seetaan seet bi seetaan nu ma kon yéen maa leen koy ñaan yéen samay yéen jigéen ñi Benno yéen jigéen ñi Macky 2012 li ngeen nekk nekk leen ci parce que la vérité avec yéen yéenay nekk ci dëgg la ñuy liggéey président kontaan na ci maa ngay suivre la jigéen ñi Benno di liggéey boobu ba tey di suivre la jigéen ñi Macky 2012 liggéey boobu ba tey loolu moo am solo. ne vous laissez pas distraire dama leen koy ñaan nag tey audio bi ma leen envoyé bu kenn partagé da ngeen ko yemale seen biir parce que bu mu gisee ma def ojo mënumaa oo ñëpp moo tax ma def ojo yemale ko ci plateforme bi kon bu mu génn vraiment ñaan naa leen ko man daal euh, rien ne peut m'ébranler fi ma nekk maa nga ca maa ngi liggéey li ma war a liggéey ndaw laa xam naa fa ma jëm incha allah rabbi kon donc nag euh, ñaan naa leen vraiment ngeen ànd ak dal ndax man nag aji Mbergane Gane ku ma xam-xam ne sama xeex dama koo mën a xeex ba mu jeex ku ma xam-xam ne sama xeex du jeex kon yéen xeex loowuma leen dama leen ñaan rek toog leen ngeen ànd ak dal yegg seen liggéey di ngeen di liggéey moom nag li ko dal ci kawam rek wax na koo doy moo waroon a mujjee wax moo waroon a mujjee wax man yaakaaroon naa ne fii ba ay année kenn du ko déggati ndax yaa rey nit. yaa xëy lu fate Fatoumata Matar Ndiaye ba tey gënnoo wax ci leeral setal sa bopp nga gën di attaqué Adji Mergane ah nag mooy nag koo xam ne dafa déstabilisé wu donc vraiment euh, mes chères sœurs je vous remercie pour l'élan de sympathie je vous remercie pour la solidarité et je vous dis que moi rien rien ne peut m'ébranler te yéen xam ngeen ma D'accord. À tantôt. Bisous à toutes mes sœurs de Bienno et de Maki 2012.